si loo ne. sant yàlla papa ñu ngi préparé combat boo xam ne si Sénégal a ngi koy waaj àdduna nga koy waaj muy dox ci diggante euh, Siteu ak la de Guiers 2 di combat boo xam ne combat boo xam ne àdduna Sénégal li ma la ko mën a waxee ñëpp combat boobu la ñuy xaar. Ah, waaw macha allah macha allah papa fan ngeen toll ci liggéey bi. waaw ñu ngi ciy nànk-nànk rek ñu ngi ciy nànk-nànk xam naa ni fan yi moom gars yi dañ ci gën a waxtaan gën see yaatal ak presse bi incha allah rabbi quoi. gars yi dañ si allah xam naa moom fii lu fan yi néew nag leen xam naa presse bi dina toog ak jàmbaar production particulièrement mooy Mansour PDG bi waxtaan ci ak nit ñi wax leen euh, suñu calendrier suñu feuille de route incha allah rabbi quoi. Papa Sow euh, combat Siteu ak Lac de Guiers yomboon na. waaw non mënul yomb quoi ndax xam nga euh, góor moom mënul yomb quoi. ko waxtaan ay fan wala ay semaine wala sax weer wala weer ak lu topp. mais bu yomb bu jotee rek day yomb quoi bu jotee rek day yomb xëy na yàlla ñun la tuddoon ñoo koy bëre ñoo koy tëgg yàlla dimbali nañ ci ñaan yàlla rek ñëpp ñaan lañu ba ñu egg ci la jour ji te mu jeex. mais affiche bu rëy boobu nga décroché ko Papa Sow ñi ñi naan mën na ko wala mënu ko Papa Sow nga ñu jékki-jékki onze bon jour ñu xëy bind si journal yi Siteu la déggee taxaw na affiche bu rëy boobu noo def ba décroché ko. waaw loolu jàmbaar moo ko décroché. parce que waaye jàmbaar. de euh, waaye jàmbaar production équipe la. boo xamante ni ñooy liggéey ñun ñëpp ngi liggéey bon liggéey nañ ci li ci war liggéey rek xëy na yàlla moo dogal ni ñoo ko war a décoché ndax am na yenn promoteurs yu ko bëggoon mais suñu loxo rek yàlla moom lu mu lu mu tudd sa jëbi rek alaa kulli yàlla day am ah ñi si dinañ liggéey nag dinañ ci liggéey li ñu ci war a liggéey lépp lépp lépp lépp jour daal mbëri yi dinañ kontaan si ñun amateurs yi dinañ kontaan si ñun aussi Papa Sow lan lañ mën a xaar ci combat parce que combat boobu bëgg nañu gis spectacle bëgg nañ gis aada ak cosaan waaw mun si ñàkk ndax ku wax si tere wax cosaan ku wax la de guerre wax cosaan ñoom ñaar ay mbëru cosaan lañu ku wax Siteu tamit waxaat ambiance bu ne mbër nag ne la de Guiers ci mbër ci Lac de Guiers la yam ci lépp nag comprendre nga ba tax ne combat boobu juróom combat bu mënul yomb combat bu difficile la combat bu jafe waxtaan la tamit aussi ah waaw waaw ana Mansour Maas mi ci jàmm moom xam naa mi ngi ci yoon bi xam naa léegi mu egg si incha allah léegi mu egg si mu egg ci yoon ok xale yi xale yi nekk si jàmbaar yëpp ñëpp am nañ combat naka ngay liggéey xale yi waaw ñu si ëpp ñu si ëpp am nañ combat ñaan yàlla ñeen ñu bëreegul tamit yàlla may leen combat moo xam jàmbaare ko tëgg moo xam keneen moo koy tëgg quoi ñi ngi daal ñi ci liggéey bi ñoom ñëpp bis ma gisee ni xam nañ ne motivé nañu ñaan yàlla yàlla may leen combat ñoom ñëpp quoi ñu bëri. Dame Sène bi mu bi muy entraîné ba si yàgg Modou Dia ñëw di adversaire am ñëw euh, image boobu image boobu noo ko jàngatee. waaw lii mooy sport xam nga tamit nit ñi lii eh, te lii lu naturel la lu naturel la loo xamante ni man man xalaatu sax xalaatoo ko woon naam moo jàpp par lundi la fi doon jaar chaque lundi day jaar ni def long indo tey vendredi xamul lu xew ba mu jaar fi tombe daam appel ko mu appel ko ñu daje dëkkante loolu dafa rafet mu nekk lu nice mu nekk loo xamante ni tamit lu mbëri war a tiré exemple la ndax làmb lii rek moo koy jaay yu mel nii buñ dajee ci geste yu rafet yi geste yu mel nii rek c'est à saluer mbëri bu ko gisee rek ñun ci nañ ci nañ ci nañ ko toppandoo nañ ko toppandoo mooy tey ji bu ñu dajee signature contrat lépp lu ñu dajee rek ñu xam ne ñaar ñi ñaari mbëri rek la intéressé tey moo jàpp benn nit la àndal benn nit la àndal ñëw romb suñu koñ suñu écurie ñu ñëw si jàmm mu dem si jàmm mu lu rafet loolu nag na ko mbër yëpp xool ni ko ni ko daam seen defee ni ko mujj a defee dafa valable pour mbër yëpp waaw xam ne nag affaire bi ñoom ñoo ko bokk quoi ñoom ñoo ko noo gisee xale bu mel ne Talva ah Talva champion buy ñëw la ñu ñaan ko yàlla defal ko jàmm yàlla lafal ko cat mu gën a góorgóorlu naam mi ngi ci nag mais mu gën a góorgóorlu xam moom làbbali fas moom dafa dee baax day tax rek mu gën a yëngutu ah di wax ne la gën a góorgóorlu rek am na avenir ci sport ci làmb yéen a ngi beneen combat boo xam ne Sénégal a ngi muy diggante ki nga xam si ni moom mooy Mama Lamine mhm. ak Gora Sock non Mama Lamine Gora Sock euh, kii moo ko tëgg Ibrahima waaw mais yéen noo leen ah, waajee góor waaw ah, mais Gora boobu ba léegi xam ne ñi ku am combat moo lay gunge wax dëgg yàlla mi ngi ànd ak yow ci entraînement yi ci lépp quoi moo ciy jiitu nag entraînement moo fi njëkk moo fi mujj chaque jour ba tax na moom peut-être moom boo xoolee xam ne presque pare na waaw presque pare na quoi waaw quelques réglages rek incha allahu rabbi rek day pare quoi ñaanal ko yàlla yóbbu ko ci yàlla defal ko ndam incha allah ñu lay gërëm bu baax a baax bu baax ñu ngi lay fay jërëjëf ngeen di topp. ah mais ñu muñ ko ji muñ ko jaral moo tax. moom lañ maasee. mais xam nga adversaire bi muy bëreel mbaytin ah, bu baax mbaytin may bëre kii nii judduwul. waaw koy loolu dafa leer xam nañ ko bu baax. waaw kay waaw ñun ñun xanaa déggoo gémère bi yow ñun da ñu lool. lamb xale koy def lamb xale koy def. te kii xale la. déer kooku yaa sa ginaar la yaa sa ginaar. bëri na bëri na jëtli combat bu métti ba Mario Mbaye. mais loolu dafa leer mais ñun xool benn jaasi ba la ñuy xeex ñun. ñu ay lébu lañ barke bu soobee yàlla bii nag mooy raw. bii mooy raw barke Serigne Touba. parcelle ngeen dëkk wala Cambérène wala. Cambérène parcelle benn la. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. waaw. cey waa waa waa Gertal Faye yi góor a soog am nga problème. Talfa. waaw Talfa ci loo ne. waaw di wax bisimilah bisimilah ina waane yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ban sant yàlla julli si yonente bi sant suñu ñaari waajur. maam Cheikh Ibrahima Fall gépp parce man Baye Fall la waa Palen la waaw di leen saaku ñaan ñoom ñëpp man taaliba la ak tout tànk yi xale ndaw que xam nga rek man Babacar damay dem ma doxee taan barke Serigne Saliou damay rus bilaay walaay damay oublier sax damay mujj gi damay a génn barki alxuraanu karim ndax bëgg ma bëgg. nit day ñëw ba sama kër ni ma sama doom ja xam ku dee yaay juraat. mais bu dee duñ juraat. <laughs> maire sax gaan boobu lan may may gaan mais sëñ Fallou. amaana mbiru borom bi la quoi. waaw maanaam na ñuy judd rek te kenn bañ a dee. waaw ñu yàlla taal la de. waaw yow boo déggee booy yi nga wàcc xoolal ñii ñii yàgg ñu ma maase wala parce que man <laughs> ñi ay xale la ñu. <laughs> Babacar ba ñëpp laa seqal jàmm ñii ñëpp ñun ñëpp benn la ñooy Ferengane ni nga ma gisee booy ndayu barki Serigne Saliou guddeeg bëccëg ñooy toog man aw ma soxla ma milliardaire soxla ma dara ñii laa am man ñii ñoo ma dooleel ñi ñoo ma exil fii ba may bëri ay lamb biskereem cent franc ba quatre heures di ma lool cinq heures di ma ne biskereem naa la bu cent franc kii moo may taxal ci mukaay si kanamam booy bi nga doon waxal léegi waaw depuis man ak moom ba ni xale ba léegi la man Babacar judduuma amaana yaa ma gën a xam rek. <laughs> waaw mais léegi juddu woo nag waaye juddu moom am na ndax nag ku jël adversaire bu toll ni mbayti kuñ ko njëkkoon a jox. Cheikh Super Jamono lañ la njëkkoon a jox. mu daw combat ba sottiwul nga jël mbaytin combat bi lu ko njëkk lu ko yàq yàq Cheikh Super. non Cheikh moom dafa blessé quoi maa ngi koy ñaanal tan bu baax. maa ngi koy ñaanal maa tan bu baax. Ah, ah. bilaay waaw waaw. waa léegi Cheikh per Jamono. waaw Fatma Dia moo wax ne euh, sa avance dem na ci. ay waaw bi mu jaar bari na de. ci tout tànk yi la dawee ba si grand frère yi. Ah, ñuy waaw. na leen dal bu bi day daw le amul arrêté lu leer laa leen wax xalaat perte la. pëlu mbalit bàyyi na ñuy xasaw xasaw lu xasawun xunnu bu xasaw bàyyi na yàqu maa ngi gën a yàqu fuuf Babacar xanaa xooloo ma yow est-ce que yaa ngi may gis yaa ngi may ëppin yaa ngi may jeew yaa ngi may gis yow mais Talfa neex na yaa ngi parcelle sa supporter loolu ñëpp xam nañ ko ci moom dafa weex dafa weex kat fi ma fekk nii Babacar waaw talfa si biir géew ak talfa bi du benn na talfa si biir géew <laughs> loolu la mi laa <laughs> yow mais mbaytin dañ la ko jox rek dañ ko wax rek nga nangu wala non man nangu lu may def man lamb laa fi nekkal ku observoir de sara ni na xalaat ay mbaytin xanaa kon ma teg sama ngeen mu toog sama gàll mbaytin yéen a ko def feede mais man def ma ko feede du dossier sax moo gone yi duñ ko jugé donc benn ma koy géem rek ñu seeti leneen waaw ah. yàgg na. Mbaye Tine neex naa géem. <laughs> si man neex naa géem ne <laughs> yéen seen i bët li ngeen gis noonu moo leen yéem rek. mais man loolu yéemu ma de si moom ak xeex bu métti. <laughs> loolu man di gis le 11 juin dina xam lépp dëgg la dina xam bi dal buubi la ko seexal xale bu ndaw bi xamul dara. waaw ah. bilaay walaay doxuma dara caaxaan. waaw bilaay walaay bëgg yaay rek gaan bëgg taral yaay. kon su ma la déggee bés boobu mën nañ xaar sa ko sa ko sa ko mbaag Mbaye Tine dàq ci. Babacar yàgg na boo gisee mu ab ta làmb bàyyi lu bari. daa lu ko waral muy sama yaay. waaw xam nga rek ñun mooy loolu de xaay lëbal dañ ko fu ne barki borom daaru amaana wax baaxul ngone <laughs> yi feemu nii dañ siy doog a jot rek ah. <laughs> bilaay yow mais géejawaay waaw géejawaay moom mooy loolu waaw am naa fa ay supporter man foo dem moom am naa fa ay supporter waaw Mbaye Tine di ñaanal jàmm xam ba bis ba yàlla may ma ndam si kawam waaw avance bi rek <laughs> waaw. comme noonu li gën a wax. ah a delloo rek. na bëri si rek. da nga yaakaar mu delloo avance. waaw Mbaye Tine am na lu muy xalaat dafa mel ne Cheikh dafa mel mu demee gone dañ ko sentir. dafa dem Maroc gone yi moom fu mu mën dem bu demee États-Unis dina ñëw rek. waaw bu ñëwee moom ñu gém ko. mais comme que dama am maa ngi koy ñaanal parce que man gis naa lépp dama man mii mën na ma dal maa ngi si làmb. carrière mbër moom xam nga rek dafa doy waar lu ndaw mën na la téye sa di ko ñaanal jàmm quoi mu wér ñëwaat parce que ñëpp ñoo bokk liggéey bi ñooy mayante xaalis waaw. mais gëm nga ne daal kon kee moom du ko da nga koy ñaan mu bañ ko delloo daal. waaw du ko ñaanal na bëri si rek non mbay du ko delloo waaw moom jantal garaan la quoi wax dëgg yàlla. parce que samay morom ban bañ a man moom moo may chance. bëreeg man dañu ma mbay rek man leen garaawul quoi man lamb laa fi nekkal. mais xeexu Mbaye Tine maanaam bu maanaam bu ngeen xeexee minute bu sax. corosé une deux est ce que ko ba xaar yow déggoo lu ma de. daa mel ne wala yow yaa ngi may jeew yow. maa ngi jeew kay. yaa bu baax. <laughs> bu <laughs> ma français de. <laughs> loo doon Sénégal. du ma français laa wax. sénégalais nga. ma du ma xeeb bëre xale bu ndaw bi sax mooy bëre ma du ma xeeb parce que nekkul dama màgg ah, bëre déggal ma Babacar ma nekkul dama ba ma nekkee xale bu ndaw laay bëre li ma la wax booy yi ñoom ëpp te ba léegi maa ngi si làmb métier bu ma dugal ma bàyyi ko xam nga kooku làmb jaral na ko waaw dam maa ngi lay ziar Babacar maa ngi delloo ziar di sant bu bu baax di jël si sama ñaari waajur di nuyu di nuyu waa parcelle 1 sama gars yi may àndal xam ne sans lu ma nekk ñu si Zarko Djili Pakala ak yeneen gars yi fa nekk ñoom Matar Idimane gars yëpp parcelle amul 26. di nuyu ñëpp di nuyu waa Unité 26 bu baax sama gars yi di sant bu baax di leen bëggee di nuyu waa Unité 24 waa 22 waa 21 damaa nekk mbër boo xam damaa bot unité yu nekk sama ginnaaw Grand Mirine Cambérène Nord Foire ñëpp nekk sama ginnaaw Damel damaa bot lu bëri kon caaxaan waruma. caaxaan waruma foog ma jaayante. foog nga yoon bi jaayante la laaj. yoon wi jaayante la laaj. billaahi wallaahi pour la 11. pour la 11 bi même pour la 11. yoon bi dafa laaj jaayante. yow ki nga war a jaayanteel moom jarut ñu la ciy laaj defe na fekk si la ba fi nga ne. waaw Modou Dia moom nëbbuwu la làqatuwu la moom bokkul ci mbër yi nga xam ne danaan sama adversaire bu ma gën a bàyyi ba làmb jàpp yooyu ñëwal na boppam ba ci say tànk. wan la ne li ngay liggéey bu bees baa di nga xam ne du dara. waxoon naa ko début signature bi bi ñu njëkkee taxaw man la ñu ñaar tey dama koy gis koy gis depuis combat bi taxaw ba léegi duñ toog semaine gisante wuñu ci damay def yoof koor gi ñu doon daje yoof guddi ci entraînement waaw fu ñuy daj léegi entraînement la ñuy daje muy liggéey may liggéey am na lu mu bëgg am na lu ma bëgg mais man xamu lu mu bëgg de yow xamoo li mu moom daan na la bëgg man li ma bëgg laa xam te incha allah ci yàlla bu ar bi génne suñu diggante li ma ko waxee woon rek damay duma daan gëw ma leneen mu jëm yi ñëw si la ba fii gëw ma leneen loolu duma daan samay supporter dafa daan tàmbal treize combats laa def ñaari yoon laa ci mu juum juumaat waruma di nekk sama ginnaaw. waruma leen yaafus waruma ñàkk fayda. daa am lu may xaar. parce que dañoo am ci man yaakaar. am fu may séntu. kon waruma wane yaafus waruma war a ñàkk fayda. fulla ak fayda ak jom lay wane te incha allah buy jom maa ëpp buy fit maa ëpp buy fulla maa ëpp buy doole maa ëpp. maa dàq bëre. li nga wax yombul këpp. daam li nga la wax bindal. incha allah yaa dàq bëri muut incha allah ci bu ñu demee ba le douze ba nga ñëw sama kër ma waxtaan ak yéen ci loolu noonu mais pour dossier bi nii lijjanti mais muut de combat bi mujj a bëri même da koo ñàkk mais da ma sama lamb yëpp metti kese man mbër mosuma dirisé ñàkk ma fayda mbër di ma dirisé sama borom góor di ma dirisé amul benn góor mooy nekkal ci géew nga may am loo may commandé wala lii non non man kon muut du la commandé non wax ay pare nga pare nga parewul non non arbitre nañ génn géew bi rek seetaan ñu mag moom yéen ñaan ngeen jëflante du moom bi taang moom ma yëpp mais ki ñëw bu fii rëddal la ne la kaay ñu bëre léegi garaawul tii dafa waral rek wax na ko loolu màkk jëkk def li mu def nii ah. day fay bor bi màkk jëkk gis màkk jëkk def fii dañ dee ah, fii may daw gaay ne ma sa waaya ngi ma tibb suuf si nga kaay ñu may ko léegi mu ne ma bala onze lii mis nañ ko pour lii nii man ak moom mais yéen ñaan li ngeen daj mosu ngeen laalante nii bëree ci ñamante ñu bëree joxante loxo sax bis sama loxo bi sama loxo bi incha allah sama droite bi la 11 incha allah laa koy ma ñëw fii du ma waa Kër champion of box club Almadi waa Kër champion of fam combat war a box ci me bi maa ngi ñaan ndam waaw maa ngi yaa ngi foofu waaw kon xeex bi xalaatoo ci dara bis bi moytu ma ci lenn lamb loo ñu ragal moo lay gaañ adduna bu ma la lamb adduna loo ragal mu gaañ la ragal loo ragal mu gaañ la mais yéen ñaar nag boo waxee daam te yàlla rek tax yàgg muut ja xam nga ko xam na la ku dàq bëre loolu nag arbitre laay amateur lay bàyyi jugé ko man ku ma nekk sama du wax victoire yëpp ku ci nekk na ma daane bokkul na ma daan sa borom. wallaahi borom pagay pagay dul jeex. xam naa li muy bëre. bu baax ba may booy di ko seetaan muy mbabat. Hmm, barke yonente bi xam nga li muy bëri. xam naa ko bu baax. li mu def foore xam nga ko. xam naa li mu for. xam naa li xam naa li mu for loolu ma ko denc pour man. day xar géppen. waaw loolu yëpp. garaawul coo jiwul day teq kat la wala day mbot kat la coo jiwul. loolu la ah man bëre man bëre man man man làmb jaaxaluma man ni ma nekkal fii. kopp fit yéen ñaar. loolu kenn waxatu ko. kopp fit ko. waxuñu kenn la ne kopp fit moo laaj maa ko bëgg. maa ëpp maa ëpp mbooloo maa ëpp mbooloo maa dàq bëre maa dàq fit lépp lu làmb laaj maa ko dàq. kuy incha allah ci kàttu yàlla may daan ñii ñii yow ñii yow ma leen ñii yow ma leen. Babacar man yow xam nga man dama koy def yow sa bopp xam nga man dama koy def yow xam nga ne man lu ma def ko. wala ma wàcceel loxo bi ñu ngi lay bëggee champion. waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi ñaanal suñu ñaari waajur yal na ko suñu borom yërëm te xaar leen ci àjjana firdawsi di ñaanal samay xarit yi nga xam ne ñoo fi jógee ku ci mel ni Ramdan Moussa Balla Gaye mhm. Ahmed Seck di leen ñaanal yal na leen suñu borom yërëm te xaar leen ci àjjana firdawsi amiin waay waaw di leen nuyu nag yéen ñi nga xam ne nag yéen yéen journaliste yi bàyyi seen ité yëpp ñëw depuis ci ngoon ba léegi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax mhm. yow li ma leen njëkk laaj mooy mbër mu toll ni Garga 2 toog temps d'année yi mu toog bëriwul ñun ñëpp di ko xaar boo amee combat ñëw bañ na da ko war a bëree yàlla indi am ndox muy loo xam ne nii lu yàgg la loolu yow en tant que un champion un athlète loolu noo ko dundee. waaw d' abord dañ yàlla parce que tamit am na ñoo xam ne suñu borom dogal na ni suñu borom jël na leen fi te maa ñoom ñoo doon ànd loolu lépp da nga koy sant yàlla da xam ne lépp lu suñu borom dogal rek loolu moo gën quoi jaamu pexem yàlla dogalam parce que lépp lu ñu war ci ñu ngi waaj di préparer waaye nag suñu borom mooy dogal suñu borom dogalee dañuy bëre dañuy bëre suñu borom dogalee ne waruñoo bëre kenn du bëre waaw Mm-hmm. kon mosula euh, mosoo toog euh, mu xaw la découragé sa carrière ak yooyu quoi. non parfois day am parce que nit moom nit rek nga mën a doon parce que mënoo nekk soutien de famille yore kër yore famille xam nga. Mm-hmm. tamit euh, nga toogaay bi xaw a yàgg. Mm-hmm. parfois nga jël décision ndax téeméer voyage waaye boo xalaatee ñu nekk sa ginnaaw rek. ngay fasaat joom xam nga entraîné waat nekk ci rek takk jaaj yi daal. tey jàmbaar ñoo décroché sa combat. ak beneen adversaire bu ñuy wax ki nga xam ne nii moom mooy ambulance. yaakaar naa combat la boo xam ne nii tey. Garga 2 suñ ko noonu combat bi lu ko ci war lan lay wax. waaw xanaa ñëw bëre rek daana amul benn amul leneen. daan rek moo la ci war daan kese amuñu beneen. parce que loolu kenn du ma ko pardonné seul waaw xam nga moom ambulance bi ma jëlee baaxul quoi su la jëlee baaxul non daa fekk waa Fadiaa kontaanul xam nga ñëpp mer mooy loolu bi xam nga ñu booloo ASC bi xam nga kon nag moom fi mu ma jëlee amul sens lan moo tax nga ne combat bi kenn du la ko pardonné bu la ci leen fekkee waaw parce que ñëpp dañoo jàpp ni maa mën maa ëpp doole maa dàq looloo am yow loolu nga gëm li gars yi wax nga gëm looloo am waa bi soufflé ak jàmm waaw le 11 incha allah moom na ñëw rek taxaw santuma ko dara na yegg si rek. mais ambulance tëlewul bëree de ba xam nga loolu. non xam naa ne ndaanaan la xam naa ne champion la. est-ce que waaye nag qualité yi bokkul. bokk ngeen qualité. non bokkuñu. yow daa ko laa nax bés boobu la 11. xalaatuma par rapport ak adversaire bi lamb mënu laa nax. nga ñëw fekk fa loolu. xalaatuma loolu parce que man lamb nag dem koy jox cëram quoi. ci war lépp dañ koy def dinañ entraîner dinañu doole xam nga. dinañ pare en 100 pour cent. Mhm. moom daal li ma koy wax naa ànd ay mbokkam man dina ànd ak samay mbokk ñëw combat bi ku ko yombalal mu ngi koy nax. Hmm. non fi mu ma jële baaxul. lu tax nga ne fi mu la jëlee baaxul. Euh, yow dèjà yow yaa ko wax sa bopp nee nga li ma toog dafa bëri. waaw bien sûr gëj naa ma làmb nan ma di xaar. waaw kon Garga 2 bu bees leen gis na. Hmm, bu bees tàq bu bees tàq. waaye jàpp ne mbër mu jóge ci victoire ngay ngay bëreel de mu ne sax ci ay ay victoire. man damaa jàpp ne musul daanu sax. le 11 incha allah rabi la war a daanu. pour yow mustaam defet loolu nga jàpp mustaam defet le 11 ci kàttanu yàlla laa koy daan bu soobee yàlla. Hmm. incha allah rabbi. moom ci wàllum entraînement ci wàllum bëri ci wàllum sañ-sañ ci wàllum fit ak yooyu yëpp ëpp lewu la ci dara de. non dàqu ma bëre. waaw ma doole. waaw gënu maa sañ ëpp sañ-sañ gënu maa nekk xale. ah yéen ñaar ko parce que dégg naa mu ne deux mille nee na 2009 la bëre si Dakar. waaw man laa dugg arène kon xam nga ni moom kon moomu mag fuuf. mais 2009 ak 2010 benn la. waaw moom 2009 la bëri si Dakar la wax. waaw mais premier combat arène am dakaar waaw man 2010 laa soog a bëri sama premier combat. 2010. waaw ci diggante Yekini Junior ak Tonnerre. ak Tonnerre koo bëree lool. Ahmed Bombardier. kon kon ça diir dire que moom moo mag. waaye loolu lépp amul solo. le 11 incha rabbi. Mhm. lu mu bëgg rek dina ko fekk. bëggee xeex ñu xeex bu bëggee bëre ñu bëre. yéen man xam naa xam naa ne ndaanaan la moom du daw. waaw ah, ndaanaan la de ah, na dëggal boppam rek. na bëre te mën a fecc. non na dëggal boppam. parce que mën na fecc tam mbër mu saf xorom. non non mën naa ambiance mën na bëre. waaw lépp fi la ko fekk. fecc newul lamb yéen ñaar ku dàq bëre. mën naa ko jàngal bëre nag. ah mën naa ko jàngal bëre bu baax sax. mën nga jàngal ambulance bëre yow. ambulance su ma juumul. waaw maa ngi moom ñu ngi waroon bëre waaw li ma génnee ci calaafu Gaston Mbengue bi muy bëreeg Thiap. waaw mën na comprendre nga mu dem jëli caat caat daan ko mu ne man yàlla dogal mu dem jëli jànkaat ci beneen yoon mhm. bu demee ba laam boole ñëwaat tey jii dañuy wax rek gëj a bëre moo ma boole moom waaye bu aru suuflee dinaa ko wan ni ko maa ko mën maa ko fu doole maa dàq bëre